c'est que fen moo jare moo jafe expliquer fen moo jare moo jafe expliquer kuy fen di dajale di def loo xam ne dëppoowul ak yoon nit bu am xel bu jàkkaarloowee ak yow munoo muusa ko waane ba wax ko loo xam ne xel mën na ko jàpp léegi nag yow bu ko defee danga koy jàppee incompétence waaye en réalité du incompétence nit ku bëgg a défendre fen day nekk mal léegi nag Sénégal nee nañ ku am kuddu doo lakk waaw ku am bàjjan doo jooy li ñu bëgg a xamal euh, Abdoulaye Diop ministre de la culture ak président Macky Sall mooy bés ni ki tey suñu mbokk animateur culturel sortant de l'école nationale des arts wéetatuñu nekkatuñu ñoom rek que ñun waa FRAPP dinañ ànd ak ñoom ba keroog ñu leen di rétablir dans leurs droits ministre de la culture nag wala ministère de la culture bu yóbboo léegi nañ ko woowee ministre du népotisme ministère du clientélisme ndaxte méritéwul beneen tur bu dul bii bu yóbboo ñu wa ñu ñu bàyyi di woowee xawma monument de la renaissance monument de la déchéance la ndaxte pratique yii muy pratique clientéliste muy pratique séddoo ni koy faral di waxee bii bukki bii njuur bii sàmba bii borom dëj bi man mii maam man mii maa mii maa moomee dëj bi mbir yooyu moo am te lii dafa ñaw ay ndaw def concours ñu jàll benn balaay def concours sax ñu am bac damay fàttali mbokk yi ne sur cent candidats au baccalauréat ñeenti at yi yii passé cinq yi dañoo lajj 63 64 dañoo lajj donc ñii déjà dañoo am bac ay jàmbaar lañu benn dans un pays boo xam ne le taux d'échec il est de 63 64 pour cent au baccalauréat ñii bu ñu amee bac ay jàmbaar lañu benn muy muy benn barrière waxuma nag ay barrière certificat BFM ak yooyu waaw première barrière bac dans un pays au taux d'échec aussi important deuxième barrière nga def concours très sélectif troisième barrière ginnaaw concours bi nga def ñetti atum formation quatrième barrière nga def un diplôme d'état nga def un diplôme d'état ça fait quatre nga passé loolu yépp am sa am sa diplôme d'état nekk animateur culturel nga war a liggéey ñu ne la doo fi liggéey ndax lan ndax sama doom sama jarbaat sama doomu militant sama jarbaatu militant loolu la ñuy woowee clientélisme loolu la ñuy woowee népotisme or bu fekkee entreprise Abdoulaye Diop la sax suñu xel mën ko nangu amul problème li muy def ci entreprise am suñu yonnewu ci waaye ministère de la culture du entreprise Abdoulaye Diop du entreprise APR du entreprise euh, Benno Bokk Yaakaar ministère de la culture entreprise Sénégal yépp la entreprise u askanu Sénégal la te kenn ëppalewu ci kenn moo tax nag ñun waa FRAPP ñu ngi lu ba fu lu mën a yem li nga xam ne moom la euh, Abdoulaye Diop def ci ministère de la culture ndaxte waaw Abdoulaye Diop kat dafa mel nii dafa fàtte li mu jàng 37e euh, promotion nu jiitu 36e promotion defe naa booy compter da ngay naan 36 soo a wax 37. doo wax 37 soo ko wax 36 boy compter da ngay naan 2016 soo ko wax 2017 waaye doo wax 2017 soo ko wax 2016 donc Abdoulaye Diop apparemment li mu jàngoon yépp séy ba léegi daf ko fàtte xamu ci tous lu dul par parlo lu dul népotisme lu dul clientélisme donc bu ñuy recruter ñii lañu ñu war a moo tax ñun waa SRAB ñu ngi ànd ak ñoom di wax. nañ leen rétablir dans le droits dans les meilleurs délais mooy nañ leen recruter parce que li ñu def du dëgg du yoon muy benn ñu naan déet mu recruter au moins dix-neuf mu re mu recruter au moins dix-neuf nit yoo xam ne comme ni ma ko waxee ay jarbaatam lañu ay doomam lañu ay jarbaatu militant wam ay militant wam fukk ak juróom-ñeent. ñoo xam ne sax benn est-ce que am nañ bakk ñaar bu ñu amee bac itam wóor na ne defuñu concours d'entrée à l'école nationale des arts bay def ñetti at formation bay am diplôme d'état waaye yow ngay liggéeyee culture war a embaucher ay professionnels de la culture et ñii ce sont des professionnels de la culture nga war a embaucher ay professionnels de la culture ngay embaucher say militants say doomu militants say sëtu militants say jërbaatu militants mbokk yi loolu dañ ko war a bañ ak fu ñu munti bokk ci Sénégal moo xam APR nga bokk moo xam PDS nga bokk moo xam PS nga bokk moo xam PASTEF nga bokk moo xam xaw ma réew mi en nga bokk moo xam bokkoo ci benn parti lii dañ ko war a bañ Sénégal dafa war a am un consensus fort pour ne les règles du jeu dañ leen di respecter jusqu'au bout et bu fekkee les règles du jeu mooy jàng diplôme mérite compétence wax dëgg yàlla waruñu nangu Abdoulaye Diop di doxalee nii dix-neuf personnes mu jël leen jànguñu jonguñu liñ leen dénk ñaareel bi biñ leen di jël fekk am na ñaar fukk ak juróom-ñeent yi nga xam ne ñu ngi taxawaalu am seen diplôme jàng ñu tàggat leen ci li nga xam ne moom lañ leen war a dénk ngeen fonne yoon la du dëgg du yoon ñu ngi koy ñaawlu beneen bi mooy xëy na sax toll nañ ci àddina foo xam ne dañuy valoriser les seniors dañuy valoriser le troisième age waaw surtout ñun ñi xëy na pays sous-développé ñoo xam ne xëy na waaw affaire bi des na donc dañuy valoriser troisième age ak senior xëy na mun nañ ne li ñu naan mag mag naa bàyyi cim réew loolu xëy na dëgg la waaye ci naka nga dem retraite ñu lay jox contrat fekk na xale yaa ngi fi loolu du dëgg du yoon boo boolantee 19 yi Abdoulaye Diop recruté muy sa clientèle politique ak fukki retraité ak benn au moins yi nekk ci agence yeeg ñoom seen ça te fait un nombre de 30 gën saa gàtt ça te fait un nombre de 30 personnes yoo xam ne amuñu woon seen place ci ministère bi 30 personnes mooy le nombre de personnes yi génn depuis 2016 di chômer. nii la ñuy def ci réew mi di yónni ay ndaw ci biir géej gi ñuy dee océan Atlantique dans le désert du Sahara wala dans la mer Méditerranée voilà comment on fait ñu naan déet ñu naan leen dem leen déposer ay projet pour mbéy te ñi ñu jàng ñu jong ci wàllu culture la culture coûte cher essayez l'inculture essayons l'inculture et on est en pleine inculture parce que apparemment Abdoulaye Diouf Sarr ab Abdoulaye plutôt Diop c'est le ministre de l'inculture c'est le ministre du népotisme, c'est le ministre des pratiques malsaines que sont le clientélisme, les recrutements politiciens. Et cela est tout simplement inacceptable. Voilà en fait euh, ce que nous tenions à dire. Et cela n'est pas nouveau. ay fan ci ginnaaw fii la ñu toogoon ak waa xawma le collectif des 189 ex travailleurs ex contractuels de la Sénélec déggoon ngeen ñu fii ñu ne DG Sénélec dafa ñëw bàyyi 189 ex contractuels jël chauffeur am jox ko contrat fekk ñooñu ñu ngi taxaw di seetaan 3 ans cent salaire. ñu ne Matar Cissé ministre de l'énergie ñëw jël ay jarbaatam ay mbokkam ak ak clientèle politique am mais lii ba kañ c'était il y a quelques semaines fii la woon fii fii lañ ko doon waxee loolu ba kañ tey ñu ñëwaat pour lii waaw il est vrai que nag réew moo xam ne boo nekkee président. nga jël sa rakk dénk ko CDC nga jël sa goro dénk ko xawma ministère du pàccoo ministère du riz xawma et de l'huile c'est normal que dafa mel ni da ngay wax say collaborateurs ministre ak directeur faites comme moi waaw faites comme moi moo tax tamit c'est la responsabilité pleine et entière du président de la République mi nga xam ne par taxawaayam par nu ñu moom nu muy jiitee de manière patrimoniale de manière népotiste mais il donne un message a ses autres collaborateurs ministres wala directeurs ñu def ni moom wax ji nag dañ koy gàttal fii lay yem mooy ah tey le 28 fii ak tabaski daal nañu xool naka la ñuy rencontrer euh, état bi di rencontrer les animateurs culturels sortant de l'école nationale euh, des arts ñoom nañ leen rencontrer teg seen loxo loo xam ne yenu na maanaam buñ ko defulee bu tabaski passé lu ñu gis ñun la lu ñu dégg ñun la ndaxte nag pesum kanam borom moo koy fajal boppam te lii nag duñ ko continuer di ko seetaan parce que lii buñ ko bàyyiwee démb c'était la Sénélec maa ngi ko doon fàttali sànq tey lii la suba beneen ministère la suba beneen direction la mais sàcc suñu suuf tojee. suñu kéwél xaw ma suñu orix sàcc suñu pétrole mais sàcc tamit suñuy liggéey sàcc suñuy place ñii bàyyiwuñu dara mënuñu continuer di rek di toog seetaan nii donc nañu jéem a régler jafe-jafe ñii nañ leen remettre dans leur droit sinon après tabaski ñu ci dara ñu ci dem ci buntu ministère de la culture ba keroog ñuy saafara seeni jafe-jafe ndaxte ñii il font partie du Sénégal digne ce sont des filles et fils de ce pays ñi nga xam ne li ñu euh, li ñu waroon def yépp def nañ ko avec énormément d'embûches desul lu dul ñu jox leen seen place ñu ne ko France ndaxte amu leen carte APR ndaxte amu leen carte Benno Bokk Yaakaar ndaxte santu leen Sall ndaxte santu leen Diop ndaxte bokk leen ci ñi nga xam ne ñoo ñuy political loolu nag dafa war a jeex te dina jeex.